tey du ñu ñëwoon fii si Rufisque di def benn activité de renforcement de capacité jagleel ko acteurs territoriaux yu dëkk risque donc activité bi mi ngi jëm si thématique bi ñuy wax euh, des fonds et les revenus dans le secteur extractif euh, bu ñuy wax euh, secteur extractif nag Rufisque daf si am pàcc bu am solo ndaxte dafa dafa dalal benn entreprise bu nekk Sococim buy exploité fii ay mines di produit ciment ak clinker donc ñu won tay acteurs fonds yi extractive communauté fonds d'appui et de précaution bi des redevances et droits fixes yi xamni état bi da fonds de dotation état bi jël ay compétences transfert collectivité yi donc fonds de dotation yi 40% fonds local mu am beneen fonds également bu ñuy wax fonds d'appui au secteur minier bi xam ne dafay eh, permettre ñi nga xam ne ñooy liggéey ci secteur mine bi au niveau du ministère euh, des mines ñu am njàpp ndal am accompagnement ñu yokk seen xam-xam ñu gën a mën téye secteur bi beneen fonds peut-être ñuy wax mooy fonds d'appui au développement local boobu fonds bi xam ni day nekk 0,5 virgule cinq pour cent yi xam ni entreprise yi nekk ci zone yi ñu ngi koy ñu ngi koy am hors taxe ñu jël ko versé ko au niveau des collectivités locales pour ñu mën euh, jël ay ay investissement am ay plan de développement local yi nga xam ne tamit si biir plan yooyu nag dafa war jël yi nga xam ne mooy ñu wax euh, ay ay bëgg-bëggu jigéen ñi pour ñu mën autonome am ay projet am ay financement beneen fonds bu mujj bi mooy fonds fonds fonds de réhabilitation des sites mooy entreprise bi bu exploité ba pare dafay dafay bàyyi ay ay pax dafay bàyyi ay kàmb donc euh, bàyyi may mën nañ si daanu baykat yi dootu si mën bay donc fond day permettre ñu defaraat site bi nu mu meloon comme ni ko fekkee woon avant ñu koy exploité ba mu baaxaat daal ñu mën a def si ay sàmm mënaat si bay donc fonds yooyu ñun ñoo doon xamal tey acteurs territoriaux xam ne ñoo nekk fii si biir si boo ñëwee si wàllu hydrocarbure mooy pétrole ak gaz dafa am ñu ni recettes yi xam ne ñu ngi koy jëlee foofu noonu juróom-ñeent fukk yi ñu ngi koy budget état te bu ko jaglee budget état ñett yi la mën jël en charge muy les euh, les les dépenses d'investissement prioritaires les dépenses courantes mais amul fay salaire mais certaines dépenses courantes yi xam ne état mi ngi koy am ak mu fay bor bi nga xam état jël na ko ci marché financier bi muy le service de la dette mu am beneen partie bu nekk euh, fukk

di waajal suñu bopp ëllëg parce que prix prix pétrole bi ak gaz bi mën na yéeg di wàcc pour que bu wàccee wala mu yéeg ñu mën jël ci fonds boobu noonu dugal ko ci budget pour mu am stabi stabilisation. Euh, li ma fi jot bu mu gis fii ci biir nekkoon na loo xam ne lu lëndëmoon la sama xel parce que mënuñu am ay entreprises yu toll ni nekk ci biir dëkk bi di fi exploiter euh, loo xamante ne c'est à hauteur des milliards ci ville bi ñu nekk ville bi di gën a dellu ginnaaw. loolu nekkoon loo xam ne toujours dañ ko doon joytu di ko euh, jàmbat te duñ doon xam fan la sooxee tey jii na li fi jot jàngat mooy donc ñooñu gaa moom sax ñu doon góor góorlu ndax boo xoolee euh, Sococim par exemple ba mu fi installé woo ak léegi mi at ñun fi lañ ko fekk te quartier ya nga xam ne ñoom ñoo ñoom la wër booy xool tey ji mën nañu wax ne ñoo gën a dellu ginnaaw ci Tëngéej te tey ji liñ fi wane nii ci pourcentage bi nga xamante tey a un ci euh, exploitation yooyu dem ci état état war a ëlbatiku ko te ñoom bu ñuy séddale boo xoolee ñoom nee nañu la jëkk a sédd ñu war caa mën a am 25% pour ba pare bépp séddoo tam bu taxawaat ñoom dañ c'est amaat pourcentage boobu te tey un loolu dafa feeñul ci quartier donc nag mu nekkoon loo xamante dafa lëndëm ba ba xam. ca état la sooxee wala ci commune ba nga xamante ne ca quartier yooyu ca lañu ñu bokk fa la sooxee ak fu mu mënti doon tamit ñuy ñaan ñu gën a leeral mbir mi gën a jàppale surtout nag jigéen ña fa nekk